en Coupe du Monde mu nekkoon sa première participation à cette euh, catégorie est-ce que vous nga ñëwaat un petit peu sur votre parcours. Waouh, bon Coupe du Monde je pense que c'est une expérience pour bu pour baax bu parce que comme nous l'avons fait, waxee euh, bii moo nekkoon euh, ma première participation. Euh, même joueur yi ñu si bëri seen première participation la woon ba mu des euh, ñeent ñi nga xamante ni jotoon nañ ko def en 2017 euh, mu nekk expérience boo xamante ni bu enrichissante am na côté yu positif yu bëri parce que jàng nañ si tamit lu bëri loo xamante ni dinañu jëriñ ñun suñu wàllu carrière personnellement ak carrière joueur yi forcément et aussi mu nekk la nga xamante je pense joxe nañ fa image bu ku wax rek dugal ko ku wax rek dugal ko si ni ci bëri buñ lay wax waxu mental euh, je pense ils sont même pas capables de se dire euh, euh, la part du mental dans le sport de haut niveau li ñuy wax la ni ñun janguñu rek football mm-hmm. parce que football ñi koy def ay nit lañu xam nga ay nit ñoo def euh jàng nañu nit jàng nañu aussi naka lañuy entraîner donc nekkuñu ay dof wala ño xamanteni ni dañu taxawaalu ba xey rek dugg ci football dañu préparer suñu il euh, y a des choses qui nga xamante en club et en sélection je ne dis pas que ne man rek maa mais on travaille sur euh, des séances qui nga xamante le développement personnel parce que nous devons il faut développer ko ci ci structurer. mu a structuré Ni problème mental parce que sur un match l'adversaire doit égaliser la adversaire bi égaliser dernière minute ci temps réglementaire manque de concentration ok ñu une prolongation adversaire du mën Nous Nous égaliser à la dernière minute qui euh, prolongation bi mental bi Nous, mu Nous Nous, la égaliser na ñu problème mental Nous ñu égaliser dernière minute les mental du mooy donc faut aussi ñun dañu am mental mhm. Personne nañ ko jëlaat c'est c'est n'importe quoi c'est-à-dire euh, c'est en fait c'est une analyse simpliste nous avons dañuy de mental mental mental mais en fait dans la réalité pour nous expliquer ce c'est quoi le mental dans le football ou le pourcentage mental dans le sport de haut niveau ils sont pas capables de le dire mais comme nous mental forcément dañ koy ci mental mais une équipe qui maintenir dañ à la dernière minute égaliser aussi qui même match qui dernière minute prolongation on nga maintenir. Deux dernière minute parce qu'on égalise à la 121e minute Moi, ci arrêt de jeu ou prolongation mental et quand on parle de penalty joueur à raté jour bobu équipe bi bu accès à tay ñom la parce que dem nañ fi Égypte dans des conditions plus difficiles L'équipe du bi a commencé Nous euh, ñu dem au but Bir Égypte Ismaïlia match a xamanteni pendant tout le match public égyptien bi dafa di siffler yi ba match bi ñu but match 9 à 8 je crois mais amul raté raté voilà maintenant quand on parle de mental euh, da ngay rétan rek dem voilà nit ñi dañuy donc si c'était à refaire ban point ngay participation waaw concentré surtout parce que as euh, dit égalisation bi nga xamante ni moom la jël euh, ci ci ci deuxième but mm-hmm. Euh, on a manqué de concentration parce que tey li si nekk mooy euh, balle arrêtée ñun à chaque fois corner moo xam corner la moo xam euh, coup de pied arrêté su mësaan am dafa am un homme de base bi nga xamante ni moom la ñuy am mu doon Youssouf Badji pour me couvrir le premier poteau comme ça toutes les trajectoires yi ak bala muy ci point penalty bi wala goal bi mom moo koy coupé bu ko rombé goal bi génn dem jël ko sur ce match ba xamanteni contre Corée la euh, dañu gissone ni sen attaquant bi numéro 9 bi daf ñu doon sonal mhm. euh, sur les coups de pied parce que mon, amna capacité capacité euh ñu changer position Youssouf man mako changer changé au lieu que les ngay nek au point poteau di couper la trajectoire demal di at euh, nga nek en individuel sur l'attaquant ou coréen ma chargé un beneen joueur Amadou 6 pour me couvrir euh, le coin poteau mais c'était la première fois mu koy def sur ce match Youssouf Amon na waaw ah, Youssouf les repères parce que depuis bi a commencé di liggéey euh, contre euh, depuis bi commencé di en U20 Lolo c'est son rôle donc à chaque fois balle arrêtée arrêté, il jaaratul woon sax ñu koy il xam na fi muy taxaw Donc ñëw donc moo tax daawuñu jël ball ci but ci balle arrêté sur le seul match où Boumo a changé c'est lañ ko jël tey si c'était à refaire

Euh, ah c'est le football on parle un peu de Youssouf euh, gis nañ ko mu joué match euh, match fii coupe du monde bi. mais dugalul benn but en tant attaquant en plus il insiste à chaque fois da nga koy mettre Nous nga koy def titulaire waral parce que c'est le meilleur attaquant euh, par rapport à ñun ligne football c'est le meilleur attaquant par rapport à ñun ligne football euh, il faut que ñu xam ni gis nga tey boo demee dans les grands clubs européens, ailleurs, ou dans les sélections nationales. Les meilleurs buteurs, c'est même plus les attaquants. Les meilleurs buteurs dans le football league n'est que tous les attaquants. C'est surtout les joueurs de couloir. Parce que dañu le football de évoluer évolué des ñu gis ni euh, attaquant zone bi nekk ñaari nit koy marqué donc c'est extrêmement difficile benn nit pour muy def différence face à ñaari nit donc li koy mën sant dans le travail fay que ben fixateur bo xamanteni tay dina permettre après peut-être yenen joueur yi nga xamanteni ñoy ñooy ci couloir bi wala ñoy dans ci milieu bi di plonger ñuy mën am yenn situation mhm. mais mom son rôle rôle bu ingrat la am rôle bu un grand am parce qu'il fait beaucoup de travail pour les autres alors que dans le passé c'était l'inverse en fait équipe yi joueurs yi dañ daan pour attaquant bi pour muy dougal parce que attaquant bu njëkk bi rek le buteur mais tay bo démé Barcelone le meilleur buteur c'est pas Suarez c'est Lionel Messi bo démé Cristiano bi mi Real le meilleur buteur c'était pas Benzema Benzema c'est l'attaquant Moi, attaquant mais c'est pas le meilleur buteur bo démé Liverpool le meilleur buteur ou les meilleurs buteurs c'est Salah et Mané et l'attaquant c'est Firmino football moi dépassé c'est-à-dire il faut que nous euh, xam ni football day dox ñuy réfléchir par rapport ak le football di doxé baña rek top mm-hmm. où l'attaquant moy dougal tous les buts ça n'existe plus dans le football parce que justement on sait que dans la zone où le football terrain bo but bi fu axe terrain mm-hmm. axe terrain mo ëpp ci ci ci ci ci football 22 joueurs presque les 16 joueurs ils sont dans l'axe du terrain densité bi fa la nek mm-hmm nga bëgg a nga ne ngay mais il faut être plus intelligent il faut contourner ce bloc essayer de passer par le couloir. peut-être nga mettre sax tay ñun les meilleurs buteurs yi ñu si euh, mondial bi c'était Sagna c'était Ibrahima Niane des joueurs de couloir parce que football mo toll foofu maintenant bon nit ñi nak bu la nexé rester toujours bloqué aux, années 50 loolu mom mënu nan la donné en tant qu'attaquant. Euh, il connaissait son rôle. Mhm. il connaissait son rôle xam nga tay nit. Euh, man du duma du parce que li ma soxla dama la koy wax soko ko def ñu liggéey soko mënul def nga dem so Ibrahima Niane tout le monde parle de attaquant attaquant avant muy ñew euh naa ko téléphone wax ko li nga xam mom lay xaar ci mom ne ko bo ñewé fi en sélection mon attaquant c'est Youssouf Badji ñëwuloo pour jël place Youssouf Badji amna fenen fuma la soxla si t'es prêt si si n'es pas prêt mon nga des vacances c'est aussi simple que ça vas jouer Metz ou vas jouer Sangal Kamla la mhm. parce que euh, le patron c'est moi mais la star c'est l'équipe donc tout le monde est là pour l'équipe man ak donc les plus mises def dañ dans l'intérêt de l'équipe nekkuma fi pour le joueur place wala non non non pour pour tracer le joueur carrière man pas tracer le joueur carrière mhm. a tracer maintenant si on peut t'aider on le fait parce que notre boulot aussi c'est ça mais li sur le si dans dama la Sans wax soo paree nga ñëw garder de bonnes relations. Là la waxoon nga décrire cette relation avec l'effectif. on a une bonne relation euh, c'est pas facile aussi de gérer des jeunes. c'est pas facile c'est pas facile mais bon après à une lañu de comme ni nous ko waxee ñun euh, jànguñu rek football. Mhm. Euh, Les li à maintenir ou ouernonit na nit parce que tout ce qui est psychologie et tout euh, jàng nañ ko euh, am nañ si suñu ay diplôme du ñu tëbuñu tëb nii rek yore ay d'avoir dawal jaar fii dawal jaar Il y a beaucoup de choses à maintenir. taille voilà xam nañ donc amuñu si problème muy ay xale muy ay mag awma problème ak kenn ci gestion parce que on sait tous que ni tey dit. ñëwé ci bénn bërëb euh, am na fi indi loolu ñu fi indi nak ku ci nak dang koy jox akam mhm. buñ ko mëne ku ko mëno jox akam dañuy ñaanalante ci jamm ku nekk nga dem mu indi keneen ku ko mëne lan ngay wax ñu naan Youssouf euh, dafa bëri caractère oh, am nga Yusuf dafa bari caractère après je sais pas si ban fan la koy waxee ñen ñi bu ñuy ñàngal bi peut-être wala euh, xam nga lolu amu ci solo gis nga euh, nit euh, lepp ci xol la mhm. xol la nit mi ngi taxaw ak di alors que xol bi neexul comme nit mi ngi taxaw ak yow ni di retanul te xol bi mi ngi mi ngi donc bu ñuy ni sa mais après c'est le Sénégal dañuy xol nit ni juste ci tout de suite ñu ko xamuñu ko mais bon

mënuloo am dara dara si àdduna mu fees sama bët ba dépassé ma mënul nekk mhm. parce que ay ndongo daara la ñu xam nga ci daara lañ yaroo xam nañu àdduna mhm. am na yu bëri yoo xamante ni jarul ñu si di avancé parce que ñun xam nañ fi ñu jógee xam nañ fi ñu bokk donc nit mënuñoo dépassé si àdduna bu fekkee ne nag nit ñi dañu jàpp ni bon duggantewoo woo ak nit ñi rek da téye sa dama téye sama bopp sax certes parce que euh, nit boo xamee sa bopp aussi da nga xam ni ngay doxee da nga xam ni ngay waxee am na yoo xamante ni doo si dugg donc loolu la suma ma liggéey lay def bu ma paree ñi ma war a àndal ñi ma war a sekkal waxtaan ñi ma war a reetaanal maa ngi nekk ak ñoom. ba ngeen ñibbisee mondial ñu gis seen joueurs yi bari am club lan ngay dundee boobu situation vu que des africains dañuy ñëw. non mais man je suis je suis je suis très content pour ces joueurs et seen famille parce que tey euh, football moom ñëpp xam nañ ni.

dama si kontaan dama si kontaan daf may permettre aussi ma jëlaat yenen xalé yu bess liggéeyaat ak ñoom et en espérant que dinañ am résultat yi gën euh, li ñii fi nekkoon am et puis sen carrière aussi décoller ni ma m'en doute bien bientôt les Jeux africains fo len toll ci préparation yi. waaw ci ngi ci préparation yi ñu préparation yi man semaine bi la la la de si parce que semaine passée dama nekkoon.

ma def lan la loo xamanteni ni du ko du ko yëg surtout que mu nek par rapport ak groupe am woowoon naa ko wax ko ni amna xalé xale yu nekk si moom yoo xamante soxla na leen ñu si bëri pour que ñu def euh, euh Jeux africains et ça leur permettra aussi d'avoir une préparation parce que ñoom boobu ba léegi amuñu amuñu préparation et on sait que amna ñu mondial bu ñu wara def ça les permet de se de se préparer et puis mu mu jël ko ak

waaw bon liggéey moom du du du yomb et puis euh, ñun li ñi ñaan yalla moy ñu am ay tanku kanam ñu nekk dans la progression que ñi am ay tanku dem euh donc xalé yi fi nekk ni dañuy ñun dañuy gëna farlu gëna euh, gëna gën a am rigueur dans ce qu'on fait pour que résultat yooyu ñu amone démb peut-être ñu am ñu gën wala yu tolloo noonu nan nga gisee progression U17 yi jeunes jeunes joueurs yi ñuy jëlee U17 ñu leen U20. ça va ça va ils travaillent ils travaillent bien ils travaillent bien et ils sont à l'écoute ni ngi déglu li ñu leen Donc, euh, euh, da ngay dañuy progresser par rapport à ça parce que la progression c'est euh, nga am écoute nga am dégg euh, nga mun di def euh, nga comprendre aussi c'est-à-dire boo amee dégg te comprendre loo mënuloo progresser c'est-à-dire ñett mom ñaar pour que progression mën am dégg comprendre di def bo défé bo après progression bi mais ñett bu si manqué rek progression bi fay bu féké amulo dégg-dégg day metti bu féké compréhension day metti bo faire. dégg am compréhension té do def do progresser donc ñett il faut pour que nous progresser ay yi euh, on voit que ni am une ñett dans donc progression bi dafay mën mon am. quel sera l'objectif de la sélection des africains. Euh, on y va que pour... dernière édition bi Sénégal Moko Là, on y va on y va on y va pour apprendre avec un nouveau groupe ils y vont pour découvrir euh, peut-être le niveau en UVA, Hamlan xam lan et ce sera une bonne chose pour nous, quel que soit le résultat de nous. ci tere bi yaay king kenn du la